Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse dal ak jàmm ci yëglekaay déclaration patrimoine bu njiitu réew mi la ñu koy dooree yëglekaay yu bëree bëri xëy dellu siwaat yéenekaay bi di réew mi quotidien ne président Bassirou Diomaye Faye fësal na am amam nag ab salaire bu toll ci 5 millions benn woto patrimoine ci wàllu foncier bu correct bor bu toll ci fanweeri million ak benn le soleil yëglekaay xëyee moom itam déclaration patrimoine ne moom njiitu réew mi kay jamono ji nag génn na ci mbàll mi ndax fësal na am amam am mu toll ci juróomi millions yi ñu koy fay weer wu nekk waaye nag am na benn woto ak benn kër naka noonu itam ñetti terrain yëglekaay bi nag na ñaar fukki millions ak juróom yor na ko ci ay bor yoo xam ne mu ngi ko war a séddale ci ñaari banque Walf Quotidien moom itam xëyee ci lu soxol nag moomeelu jomaay fay mi nga xam ne rek moo jiite réew Sénégal yéenekaay bi ne nam ko waxee woon noonee la ko defee moom jiite réew mi nag fësal na salaire bi nga xam ne rek moom lañu koy fay li ñuy xaar jamono ji nag mooy ay jëwriñam ak DG am ñu topp ci ay tànkam Sud Quotidien moom it topp ci tànk Walfadjri rek di xam ne nag ne lu jëm ci salaire beeg bor yi nga xam ne am na ko ak ay bien immobilier moom président Diomaye fay nag lépp la daal di fësal ci kanamu askan wi Vox Populi ne ko ab déclaration patrimoine boo xam ne rek fësal na am amam ak ay moomeelam ci kanamu askan wi nag yéenekaay bi di samp laaj ni patrimoine bu jomaay fay nag lan moo waral mu soppeeku ci diggante bi mu nekkee candidat ak bi mu nekkee président bokk na ci salaire président bi xam ne rek moo gonflé ay compte bancaire am les éco yëglekaay ne ko patrimoine bu président de la république nag fi xam dont ni am na ay bor waaye ci geneen wàll itam mën nañu ne gongo ndax am na kër gu toll ci deux cent soixante-quatorze millions lu tegal akub terrain boo xam ne rek toll na ci cent quarante millions boo xam ne rek tabax na ko ci koppar yu toll ci cent trente-quatre millions neuf cent soixante-seize mille akub boo xam ne rek fanweeri millions ak benn ci la toll ab terrain quatre ectare boo xam ne rek dugal na ca quarante-quatre millions ab woto occasion boo xam ne rek mi ngi ko amoon jamono bi muy nekk candidat Le Quotidien yëglekaay ne déclaration patrimoine bi kay fësal na am am ak avantage yi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi am jamono ji nag l'observateur ne ko bekki nañu patrimoine bu Diomaye Faye waaye am na ci ay question yu bëri yoo xam ne rek ma nga ca gannaaw yi nga xam ne rek moom la amee yooyee terrain ci laaral gi nga xam ne rek am na ci nu mu tabaxee këram gi ci Mermoz yër leen boobee yëglekaay l'info yëglekaay fellu ko ni patrimoine bu njiitu réew mi kay moom Bassirou Diomaye Faye nag na ci wàllu xaalis waaye riche na ci wàllu immobilier dina fayeeku juróomi million weer wu nekk am na lu ëpp fanweeri million ci ay bor yu mu war a fay benn woto ak kërug deux cent goo xam ne rek mu ko amee fii ci Mermoz ab terrain boo xam ne itam toll na ci 4 ectare mi ngi ko amee ci dëkkam foofee ca Sandiara ak ca Kër masaara yéenekaay bi ne lu nu mel nag li waral mu def ko bokk na ci leeraange ak jub-jubal ak jubbant gi nga xam ne rek ñu ngi koy woote ñoom nguurug Sénégal addu jëmale ci beneen yëglekaay mu di le temps moyen xëyee ki tey ji nag lu jëm ci accident yi nga xam ne rek mi ngi mel ne tulleeg màllee ci kaw tali bi fukki doom aadama ak benn démb ñàkk nañ seen bakkan ci diggante Mexe ak Kébémer ñu bëri jële ci ay gaañu gaañu yëf yi nag mi ngi am ginnaaw benn ay bés goo xam ne rek am accident bu metti bu amoon ca nduluma ji ba juróom benn yaa dama ñàkk ci seen bakkan yéenekaay bi ne ci ndorteelu 2023 ak léegi nag wàññi nañ fi lu tollu ci ñatt téeméeri doom aadama yu ñàkk seen bakkan ci kaw tali bi Les Échos yëglekaay xëyee moom itam ci accident boobee nga xam ne rek am na ci route nationale numéro 2 bi foofee ca diwaan bu luga fukki doomi aadama ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan juróom-ñaar jële ci ay gaañu gaañu yu metti te ba léegi nag dégguñu Jomaay Fay wala Sonko àddu jëmale ci Libération ne ko choc bu metti kay moo am démb nag ci diggante Ndande ak Mexe fukki doomi aadama ak benn faatu nañu ci yooyee accident juróom-ñett yi jële ci ay gaañu-gaañu yu méttee métti ñuy jooy lu ñu mel noppeeguñu ab camion daal di dérapé nag dugg ca benn kër foofee ca Saraya faat fa ñetti gone jëwriñ ju ñu dénk nag wàllu transport El Malick Ndiaye moom xam le ni ni nag faaw ñu daal di taxawal ab code de la route boo xam ne rek dañu koy appliquer ak rigueur Aminata Touré ne ko loolee mooy li war ndax fukki doomi aadama ak benn ñàkk seen bakkan ci l'accident loolee xel mënu koo nangu te bu ngeen ko bëggee saafara nag faaw ngeen jël ci seen ay matukaay mat sëkk ak defante la laaj bu ko defee nag saafara mën ca amee vox populi moom itam xëyee ci accident yi nga xam ne rek am na ci benn minibus boo xam ne rek moo tasee ko camion foofee ca Palmeu yéene bi ne yëfi maa tey dëggantaan moo waral accident boobee ndax camion boobee nag da doon doublé ñaari woto ci la mujjee daal di tase ak minibus yi nag mu doon loo xam ne rek kii di Makhtar Faye mi directeur exécutif bu nouvelle prévention routière mu ngi koy ñaawlu ci biir yëglekaay bi turu bi yëglekaay ko fi mu toll nii kay nag mbir yi faaw rek ñu jël ci ay matukaay ndax ci diggante ñeenti fan rek ñaar fukki doom doomi dama ak benn ñàkk nañ seen bakkan ci tali bi fukk ak ñaari démb lañu ñu faatu ci diggante ngaay mexe ak Kébémer ñu ne déetawaay ab camion fekk ñetti gune yu am juróomi at foofee ca Saraya faat seen bakkan alxames ji ñu weesu juróom benn bakkan enregistré nañu leen foofee ci ji ci diggante Kaolack jàpp Tamba ba noonu Bakel nag ñu bëri ñàkk seen bakkan ci ay accident yoo xam ne rek wàññi nañu leen ci biir at mi ci atum 2023 nag gis nañu ñeen fukki bakkan ak juróom yoo xam ne rek ñàkk nañu ko ci kaw tali ci diggante Louga ak Linguère acte de contrôle yi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku ci kaw télé bi xël yi nga xam ne rek borom woto yi ñu ngi koy daw bés bu yàlla sàkk loolee ñu ne bokk na ci li waral accident yi bokk na ci concours général bu atum yéenekaay bi di Peko au rendez-vous des école sénégalaise bi nag di sargal tey jii ñii nga xam ne rek ay crack la ci organisation yi ñu doon organiser nag ay concours ak examen scolaire moo xam ci wàllu CFE ci wàllu BFM wala yéenekaay bi ne téeméer ci ay candidat nag daañ leen séddale juróom benn fukki prix yi mu toll ci 112 distinction yoo xam ne rek yi nag lépp ci enseignement public bi la ñu ko jëlee yéenekaay bi ne gulee tey jii nag président Bassirou Diomaye Faye nag fas yéene jàkkaarloog élite yi nga xam ne rek ñoo bàyyeekoo ci l'école sénégalaise bi jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram wax ci wàllu sport ak mercato bi nga xam ne rek moom la ñuy amal yéenekaay bi ne Lamine Camara fi mu toll nii nag boo moytuwulee léeg tey mu fekk ji waa AS Monaco sunu làmb xëyee ji akub avance boo xam ne rek moom jot na ko Balla Gaye 2 bàyyeekoo ci Baye njaay mi nga xam ne rek moom mooy njiital Alburax Events yéenekaay bi di samp laaj ne Balla Gaye 2 ndax avance boobee mu jot nag dafay sëgg bëre ak Eumeu Sène wala dafay xaar diggante Modou Lo ak Siteu lu mu ci mënti doon li ci kanam raw li gët mbokk yi léegi noonu fës yëglekaay jàmm ak jàmm. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñu leen doon may